alhamdulilahi wasalla abada alallasi bihi lanal huda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan min huluqad wajalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida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 kenn ci njabootu Sëriñ Tuubaa muy Cheikh Abdul Xaadir imaamul aimma Cheikh Abdul Xaadir géej la waaye dañuy barkeelu rek ci ay mbiram ah mi ngi gane si woon àdduna ni ki tey ñetti fan ci weeru tam xarit atum junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñett 1333 ci gàddaay gi yonent bi dëppook 1914 ca daarul alimul xabir sëriñ dara abdurahmaan loo moo ko yëgal sëriñ bi wax nañ ne sëriñ bi keroog bëgg na ci mbég mu yéem ñëpp ba woolu rakkam maam cerno jox ko turwa ne ko nag ba yeboo nga yàggal saw yoon ndax fii ba nga dellu si ku la fi gis suñu boroom jéggal ko maam cerno yéen gum yéen a jullit ñëpp njéggal tax na mu dëngal yoon wa ba daana jaar ci ab dëkk sax woo leen ba ñëpp génn ci pénc ma mënu leen dama fee jaaroon rek doon leen nuyu ngir bëgg ñu gis ko ba dajeeg njéggalu suñu borom bam tollee moo ko woolu ñu andil ko ko mu dalal ko daal di koy daal diglewaat ñu ñu ñu yóbbul ko sëriñ daam mu wéyee leen jàngum alxuraanam mam fa amee ab diir sëriñ bi wooluwaat ko weneen yoon ba ñëwee sëriñ bi laaj ko foo toll mu ne ko sóoratul xaj ji mu ne ko loolu di kiimaan la maa ngi la woo ci weeru zil xijja nga toll sóoratul xaj ji sëriñ Abdou Khadir nee na jamono boobu mu nekkee njaare mag ñi ku ci bëggaan a gis mbégum sëriñ bi da ngay bàyyi ba sëriñ bi woo ko nga raaxaloo ak moom ndax wóoral na da nga gis jamaal ja sëriñ bi teegu fa ab diir daal di woolu sëriñ Bakki Bousso jox ko ko ngir mu mottali njàngum alxuraanam mu boole ko sëriñ Birahim Ndiaye mu jàngal ko alxuraan ba mokkal ba bind kaamil daal di koy jébbal sëriñ Bakki sa ndax boobu fekk na sëriñ bi ñibbisi Tuubaa mu jàng fa xam ba jàng siira daal laxas ñëw njaareem ci sëriñ mu dem jàng fa xam-xam ab diir Cheikh Mouhamadul Moustapha kilifaam magam sëriñam daal di koy digal mu delluwaat ci sëriñ Mbacke Bousso wéyee la njàngum xam-xamam ba mu wax na ne sëriñ Mbacke da ko fonkoon lool ba sampal na ko fa kër kër ga sori woon na jàkka ja waaye la muy sori sori sëriñ Abdou Khadir waxtu julli juróom yépp ci jàkka ja la ko daan jullee si nee nañ bu ko sëriñ Mbacke Bousso masaana jiitu ci jàkka ji sax da koy nekk ndax wóor na ko ne sëriñ Abdou Khadir dana ñëw kon kooku ku teel a teg tànkam ci li ñuy wax al ibada wal xidma la maanaam jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla ci bindeef yi ndax koo xam ne ni kat saggane àdduna rek eh, kala doon andi saw rek koo gis suñu borom jéggal ko kon kooku dangaa doon dangaa ñëwaale jëriñ bindeef yi waaye doonoo nit ku farlu lool ndax farlu mooy li sëñ Tuubaa wax rek koo xam ne nii kat waxtu julli juróom yépp yaa ngi leen di julli ci seeni waxtu rek farlu nga ba noppi yow dañ lay bo dañ lay limaale ci jàmbaar yi waaye kenn dootul limaale ci ñu sàggat ñi fa kullu man fi kulli yawmin salla xamsan min alsolaati fi lmusalla fa innahu laysa min almufarritin bal innahu yuaddu min mujtahidin sëriñ Abdou Xaadir ay xaritam mi ngi leen daan tànnee ci sàppe si maanaam xarit xaritam ci ci ci sàppe si la leen daan tànnee ay jullikat leen daan doon doonoon koo xam ne nii nituk sunna la woon waaye tamit baatub istiqaama dañ koy dégg ci ay waxam dañ ko daan jëfit dañ ko daan gisit ci ay jëfam a ah, bi fi Cheikh Mamadul Faadal bàyyi ko Cheikh Abdul Ahad dénk ko lu jëm ci wàllu diina ji digal ko muy jiite ajjuma yépp ak julli iid yi 1968 ba 14 mai 1990 ji mu fi jógee ajjuma yi mu wuute mënees na koo takk mooy weer ak juróom-benn fan yi mu def Makka bi mu ajee 1976 ak ajjuma ji mu mujj def ci jamono kon kooku farlu ak pësseef ak yitte foofu la mën a yem ndax nit mënta ñàkk ay ngànti jamono wala ngànti yaram waaye yooyu yëpp da ko daan muñ euh, ngir matale ndigalul boromam loolu yi kooku mooy Cheikh Abdul Xaadir waaye noonu yi mu fonkee woon jaamu yàllaat noonu yi la xóotee woon ci jariñ mbindéef yépp ndax sëñ Xaadir dafa nekkoon ko ku disponible koo xam ne yow yaay takk sa yi yaay tudd doom yi di leen feral di jullee néew yi ku am xew wala mu am tudd wala mu am yitte wala mu am njàqare xelam ci sëñ Abdul Xaadir la daan dem ndax dana la wóor ne boo demee da nga ko mën a gis te boo ko gisee doo wàññi ko loxoy neen benn mu fajal la ko ci zaahir wala ci baatin wala ci ñaar yépp am na ku ma nettali ne dafa amoon am tudd wax ko ko mu jox ko ci ñeent fukk mu génn daal ne man daal sëñ Abdou Khadre nag lu toll ni ngénte ñeent fukkam yi dal waaye nee na xew woo moo dàq ci xew mu mas am ngir barkeel gu ñeent fukki sëñ Abdou Khadre yooyu barkeel nekkoon koo xam ne ni nag mbiri jullit ñëpp ko yitteeloon imaam Khomeini bi mu fi jógee dafa digle ñu defal ko ay ñaan ci jumaa ji te yonente bi nee na man lam yëxtam bi umuril muslimina falaysa minhum képp koo xam ne nii kat mbiri jullit la bokkoo ci ñoom waaye nekkoon koo xam ne dañuy wax salaamatu sadr nekkoon na ci moom Sëñ Abdu Xaadir ku muccoon ayib la maanaam ku selloon ab xol la ku set wicci te alxuraan lu mu wax yawma laa yanfaxu maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim ku bañoon ak nifaaq la ak naafeq ku ko bañoon la ku bañoon kuy wax lu du dëgg la te yonent bi moo ne alkazibu yu jaanibul iman fenn dafa dàqoonteeg gëm yàlla kon sëñ Abdul Xaadir mooy koo kii suñ boroom nangul na ko ak ubudiyatoom maanaam ak jaamoom suñ boroom nangu na ko waaye ab liggéeyam bu mu daan liggéeyal mbindéef it suñ boroom nangu na ko ndax turu soixante-seize la ayin juróom fukk la baa ñaar la deel ñeent la mooy soixante-seize soixante-seize ans la am ci àdduna li mu mujj a def ci àdduna itam mooy al ibaada wal xidma maanaam dimbali mbindéef yi ak julli jaamu yàlla ndax bi muy joxe di dimbale mbindeef yi ak bi muy kàbbar di julli ci fukki minute rek lay tolle julleem googee ci biir julli ga ci la ko seen borom wàccee kon kooku mooy sëñ Abdou Khadir kon sëñ Abdou Khadir daal ku doon wax ci ay mbiram mën nga fee fanaan yendu fi eh, te doo doo doo doo ay mbiram ni ma ko déggee ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha rek mu ne sëriñ Abdou Khadir moom aali sëriñ bi ji soppi ku jëmm la Cheikh Mouhamadou Mountakha am fi sax wallahu wala ah nee na sëñ aali sëriñ bi la aali sëñ Tuubaa ji soppiku jëmm la waaye nag njabootu sëñ Tuubaa noonu lañ mel ndax sëñ moo leen euh, ñaan euh, melowoo yi ñu mel suñ borom moo leen ko defal ci ñaan gu xam ne sëñ Tuubaa moo moo ne habli bi jaahi njaboot goo xam ne nii kat bu ñuy ñëw dañuy àndaale martaba yu kawe buy ñëwit dañuy àndaale ak wilaayatu dañuy doon waliyu kooki mooy Cheikh Abdul Xaadir kon nag tey jii mooy bisam bi ñu ngi ñaan ah, mbokk yi fuñ mën a nekk rek ñu def ay ñaan jàng alquran jàng xasida tudd yàlla ña fa jëmit mm, yàlla na suñ borom àggale leen ci jàmm te suñ borom it nangu ñaan yépp mm, dolli Cheikh Abdul Xaadir ay leer waaye tamit taas ci barkeem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 in uridu illa al islaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim